الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد عباد الله mbokk yi ñu ngi sant suñu boroom mi boroomu leneen lu dul moom boroom yërmaande ji matale ki nga xam ne foo wéete mu wéttali la foo tiitee mu dalal la foo ko woo mu wallu la mooy dalal xol yi àndoon ak tiisam njàqare kenn du wékku ci moom mu koy neenal kenn du ko yaakaar muy tas yaakaaram ñu ngi koy sant sant yu bari di ko gërëm gërëm gu amul ab di seede ne moom dong yeyoo ñu koy jaamu kenn la bokkaalewul dara ci nguuram ci ñépp ay jaamam lañu ñépp ak njabootam lañu moo bind lum mën a doon mooy wërsëgal kum mën a doon moo jubal ku nekk ci la nga xam ne moo koy jëriñ na nga loolu bàyyi ma la wala doomu aadama la mooy ci gàddu ci teggi leeni lor mooy ki nga xam ni lépp mooy ka ci am kàttan ñi ngi seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo doon ab jaamam di yonent bi mu yónni woon ci ñun yonent boobu nga xam ni amul benn musiba bu dal ci kaw jullit lu dul musiba faatu bi yonent bi alayhi salaam moo ko gën a màgg bu dee saxaabatul kiram day lool la ñu gëmoon te mooy ku tamasan ak musiba bu ko dal da daan wax naan musiba amatul gannaaw ba ñàkkee yonent yàlla bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam lu dul ne la ko suñu borom wu wuutale mooy téeréem bi nga xam ne sàmm na ko ak sunnaam si nga xam ne sàmm na ko muy nara sax ba ila yawmi diin ay yéen mbokk julit ñu ngi leen di dénk ngeen ragal seen borom ñu ngi leen di dénk ngeen topp seen borom tey jéggoolul seen borom taxawal diine ji ca yàlla tax dundub àdduna bu ñu nax mbokk dee lu jege la ca bis bu ñëwee day mel ne mosoo fee jaar ca gannaaw loolu rek la bu tar moo ñuy xaar gannaaw rek la ba ñaari kër doon la fa nekk këru teraanga di ajjana yal na yàlla def ko muy suñu kër ak këru toroxtaaga ga di sawara yal na yàlla musul mi ci suñu borom mu ne ñi nga xam ni dañoo weddi samay aaya dana leen tàbbal sawara soo xam ni daañu sax di leen lakk ñu sax ko ba faw fu seen bëri ya sotteekoo ñu indi beneen bu dul moom ngi leen ñu mas mbugal ya am naa ñu gëmoon ci def lu baax gis nga fële dana ñuy weddi ki weddi moom amul lu baax lu mën a def waaye ci gémmit sa ngëm bala laa jëriñ nga def lu baax mu ne ñooñu day ñu ngi leen di xaar àjjana yoo xam ne dex yaa ngay daw ci suuf ñu sax ko ba faw danga leen fa ñeel ay lu ñuy àndal ci borom kër wala ay soxna ñoo xam ne dañ leen a laabal ñu nekk ak ñoom foofu ba faw ay yow mbokk julit xamal ne day ki nga xam ne moom mooy ab julit bokk na lu koy jëriñ mooy mu xam ban taxawaay la war a taxaw ci jaamu yàlla ci jamono bu ko yàlla sottee ay xéewalam waaye ban taxawaay la war a taxaw ci jaamu yàlla heure bu nattu yàlla dalee ci kawam ak naka lay mën a delloo ci yàlla subhanahu wa taala mbokk xamal leen ne day suñu borom yàlla mi ngi waajal la nga xam ne mooy pay yu mag ñeel ña nga xam ne dañuy nuñ nuñ bu rafet pay boo xam ne nee na amul kenn koo xam ne ku ko mën a xam kenn du ko xisaab loolu moo tax ba kon aka yeyoo ci jullit mooy nga xam man heure bu nattu ñëwee naka laa war a def bokk la chaque ne ay nattu mosul jóge ci kaw suuf waaye nag rawatina jamono yi tey jii nga xam ni adduna bi dafa gëndalu nit ñi seeni soxla gën a bari jokkoo bi gën a bari loolu moo tax natt yi tamit gën a bari am naa yow jullit dara du la ci bett ndax suñu borom yàlla moo ne woon ay yéen ñi gëm dee leen dimbali koo muñ dee leen dimbali koo julli yàlla mi ngi ànd ak muñkat yi yàllaa ngi ànd ak muñkat yi xam leen ne day dinaa leen nattu ci lenn loo xam ne xiif lay doon ak lenn loo xam ne tiitaanga lay doon danaa leen nattoo jël ci seen alal danaa leen nattoo jël ci seeni bakkan danaa leen nattoo jël ci seeni meññeent waaye bégalal nu muñkat yooyu nga xam ne heure bu nattu ñëwee ñoom dañu naan ñun day ay moomeelu yàlla lañu ca ñun day ci yàlla la ñuy dellu ñu mel nii day borom bi mu ne dana leen tagg borom bi mu ne dana leen yërëm ca ñii day ñooy ña nga xam ne ñooy ñu jub ay yéen nga ko julit loolu aay bi bu ko julit déggee day xam ne sunna yàlla ci kaw suuf day mooy fokk mu natt ab jaamam moom lay wax it ci beneen aaya ne ndax jàpp ngeen ne da ngeen di dund ci jàmm xëy suba tabbi ajjana te du ma leen nattu comme na ma nattu woon ñu leen fi jiitu woon ñooñu nga xam ne ay geer daloon na seen kaw ay ñàkk ay tiis ak i xiis daloon na seen kaw loolee kon ba yeneen bi daan ànd ak ñoom naan kañ ne ndimbalu yàlla di ñëw suñu borom yàlla mu ne xam leen ne ndimbalu yàlla day lu jege la ca loolu mooy rek njoorti ci julit heure bu natt ñëwee nga xam ne ndimbalu yàlla lu jege la bokk suñu boroom bu teguwul ay nattu kenn du xam ni ñu baax ñeg ñu bon ñi ndax dama lay xiiwal ku ne day woote ne bëgg na yàlla ku ne day woote ne muñkat la amma bu natt ñëwee ca la ñuy xàmmee bokkaalekat yàgg ñu dul bokkaale ca la ñuy xàmmee naafiq yàgg ñu dul naafiq ca la ñuy xàmmee muñkat yàgg santkat ya loolee kon moo tax suñu borom yàlla di natt ay jaamam ngiree fayal leen di fay yowmal qiyaama doon fay yoo xam ne dafa tegee ci ay preuve bokk julit xam nañ ne bokk na suñu borom yàlla subhanahu wa taala loo xamee ne nii dana koy def ca mooy julit bi léeg-léeg yàlla bette ko rek teg ci moom ab natt natt boobee bu ñëwee dana far ay bakkaaram dana yëkkati ay darajaam waaye dana ko delloo gannaaw wax ko attention yaa ngi nekkoon ci càggante yaa ngi nekkoon ci xiiwal yoo xam ne xamuloo ko mi ngi noonu borom xam-xam yi nee nan li nga xam ne mooy ak wér loolu day mbaxana buur la boo xam ne nii mi ngi nekk ci kaw ñuy wér doonte nañu feebar rek ñoo ko mën a xam loolee kon la la yàlla teg nga delluwaat gannaaw xoolal sa bopp xam sa ko lot yow en tant que doomu aadama yaram baa ngi nii nattu dal ko ci mënu ci dara loolu lépp mbokk da ngay gis ne dafay baax ca la nga xam ne mooy xolub julit amma julit buy dund rek ci dem lenn lu ko naqari du la teg moom loolee bakkanam nat ko seytaanam nat ko dafay doon lu yomb ci moom lool suñu borom yàlla gis nañu gannaaw ba ñu déggee ne danañu nattu natt yooyu mën a sakaanoo lool mën a bari lool mu ne nag bégalal ma ñi nga xam ne bu ñuy dañuy muñ waaye mbokk la yàlla subhanahu wa taala bëgg ci muñ mooy muñ goo xam ne muñ gu rafet la yeneen bi salallahu alayhi wa sallam dañu doon wax asabru inda sadmatil ula muñ nga yàlla gërëm day mooy fa musiba bi dalee sa kaw nga muñ muñ gu rafet na am bokk julit loolu nag kenn du ko am lu dul koo xam ne préparé woon na boppam démb xam ne man kat moomeelu gu yàlla la lu ma war ci njabootu alal mboomeelu gu yàlla la yàlla subhanahu wa taala moo ci dogal lu ko neex loolu moo tax ba du saari du jàmbat ci la nga xam ne muy kanamu nit ñi suñu borom jox ñu ci misaal bu mag kii di yanquba alayhi salaam am doomam bu mu bëgg lool yàlla subhanahu wa taala daa di wëlbati ko teqale ko ak moom ay at yu yàgg yàgg yàgg ba mu dem ba màgget na ñu ne déetawaay doomam yooyu nga xam ne ñooy sabab bi te xam ngeen ne natt dana metti bu jógee ci jàmbur mais ñi la waroon a aar war laa sàmm bu dee ñoom ñoo la seen natt mu gën a metti doomam yooyu demaat ka nga xam ne moom la doon xooli Yuusuf alayhi salaam di Binyamin ñu demaat ñëw na ko Binyamin kat jàpp nañ koo comme prisonnier loolee tar ci moom lool mu ne waaye nag fa sabrun jamil danaa muñ muñ gu rafet dindi ni koo yàlla ca la nga xam ne moom ngeen di def wëlbatiku na nag mbir mi tiis na ci moom ba mu daa di doon koo xam ne ko silmaxa la ne cay natt bii ma dal ba doon ñu naan ko yow baay doo den di fàttaliku yuusufa ba baa nga doon koo xong mu ne leen hey innama ashku basi wa xuzni ila allah man kat sama piis ak sama njàqare amul kenn koo xam ne ni moom laa koy piis ku dul sama borom yàlla jalla wa ala wa aalamu min allah ma la taalamuun ndax xam naa ci yàlla lu ngeen xamul te it xamoon ne ne natt bi lu mu yàgg-yàgg natt bi lu mu tar tar fokk yàlla subhanahu wa taala dana ko mas a xeccali ci loolu loolu moo tax ba yow julit sa njëlbeenu natt heure bu ñëwee dellul ci yàlla dellul say mbir ci yàlla xamal ni natt bi ci moom dong la jóge waa asamaan ak suuf buñ daje woon bëgg laa benn pusa jam la munta nekk lu dul yàlla dogal ko yàlla moo ko dogal wax ñu ni ma asaaba min musibatin fi l ardi wala fi anfusikum illa fi kitaabin min qabli an nabra'aha inna zalika ala allah yasir amul nattu bi dal ci bakkan yi wala bi dal ci kaw suuf lu dul dafa nekkoon ci benn téere jiitu doomu aadama yi ah di ci xam dara borom bi subhanahu wa taala nag ne loolu day nekk na loo xam ne nii lu yomb la ci yàlla subhanahu wa taala loolu moo tax suñu borom jox ñu kaddu bu rëy kaddu goo xam ni bépp julit moom la war a gànnaayoo bépp julit moom la war a yóbbaloo ngal la waay jàpp leen ko bu baax ca mooy inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñun ñëpp day yàlla moo ñu moom te ñun ñëpp ci yàlla la ñuy dellu kaddu gu gàttandoo ëmb lu rëy rëy rëy loolee day wane yow delloo nga say mbir ci yàlla sukkandiku ko ci yàlla dalal sa xel ci yàlla saxal ne yàlla mooy ki moom lépp kon keneen ku dul moom ab jaam la dañoo war a ànd ak moom jaamu ji yàlla waaye saxal itamit ni yàlla moomu ci moom la ñuy dellu loolee mbokk da ngay gis ni ak tumuraanke ci nit yi tey ñu gëm xam loolu lan mooy maana même léeg-léeg bi sañ seeni lammiñ inna lillahi wa inna ilayhi rajiun sans pour autant ñu xam li muy firi jamono yi am na tiis bu metti boo touché Sénégal yépp benn xale boo xam ne nii amagul fukki at ñu jàpp ko daal di koy rendi ba journaliste yi demee di wax ak bàyyi ba mu ne dara ñëw ci de sëñ diw moo ma ko joxoon delloo naa ko sëñ diw mbokk loolu lan lañ koy méngaleen inna lillahi wa inna ilayhi rajiun waaye mbokk da ngay xool kooku ana lan la ñàkk ci xéewal bu rëy goo xam ne moo ko naroon a dal xoolal suñu yonente sallallahu alayhi wa sallam la nga xamee ni nii wax na ko nee na amul benn jaam boo xamee ne nii yàlla teg na ci moom musiba mu ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñun day ay moomeelu yàlla la te ci yàlla la ñuy dellu ay yàlla yàlla na nga bindal tuyaaba ci sama musiba bi ay yàlla yàlla na nga wuutal lu ko gën lu dul yàlla subhanahu wa taala dana ko wuutalal lu gën loole allahuma ajurni fi musibati wa axlif li xayran minha mi ngi noonu soo ko mënee wax ci arab ba moo gën soo ko mënul wax ci arab ba lang bala yàlla wërsëgal nga koy wax ngal la waay fu la musiba dale waxal inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ay yàlla day yàlla na nga bindal ak fay ci sama musiba bi yàlla na nga wuutalal loo xam ne nii moo ko gën mi ngi noonu ay góor googu ak neexoon mu dégg la yonent bi alei salatu wasalaam waxoon bam ne suñu borom bu yónnee malaaka yi ñu jël doomu jaamam dana ñëw ne ah jël ngeen sama doomu jàmba ñu ne ko waaw waaw mu ne jël ngeen lii di fleuru xolam ñu ne waaw waaw mu ne waa lu mu wax nag ñu ne ko ah yàlla xamidaka wastarjaa moom day sant na la dellu ci yow mu ne kon tabaxal leen ko ca àjjana këru can mu nar faa dëkk moog doomam mbokk julit lii lay gis looloo tax ba bu ñu xoolee gaa yu baax yu jëkk ya ñoom heure bu natt masam ñëw lañ lañ koy xool mooy côté la nga xam ne moom la leen di jural ci ay xéewal ci seen diggante ak seen boroom ba loolu da daan tax ba natt ba lu mu rëy rëy rëy rëy rëy ñoom gisatuñu natt boobee loolu moo tax ba nga la waay yow julit góorgóorlu heure boo xamee ne nii nattu dellu na ci yow nattu baa ngi ñëw di la wan ne da ngaa war a tooxu dellu ci sa borom ca kat xam ne nii nga ñàkk mën la sa bopp dara keneen nit mënulu la dara te suñu borom la tax muy teg ay nattu mooy laallahum yatadarraun nee na dama teg doomu aadama ay nattu ngir ñu toroxluwaat dellu ci man waaye da ngay gis lu bëri ci doomu aadama yi xamuñu loolu gannaaw ba yow mbokk jurit xamal ne natt bii nga xam ne daf laa dal rafetalal njoortu ci yàlla nga la way julit xamal ne jaamu woo yàlla lu gën a màgg loolu kenn ci sahaaba yi mi ngi nettali nee na kii di salmaanul farisi bi mu faatoo moom dafa tëdd gént ko gis ko mu ne ko waaw salmaan bi nga demee ci yàlla ana looy gën a yaakaar loo fa fekk mu ne ko dara xanaa lu dul rafet njortu ci yàlla mbokk julli day rafet njortu ci yàlla bépp natt boo xam ne nii dal na la nga rafet njortu ne yàlla day lim ma boole ci ay soppeem bëgg a yokk samay daraja bëgg ma gën a dellu ci moom looloo tax mu daal di may teg la nga xam ne mooy natt bi suñu borom yàlla ni wa asa an takrahu shay'an wa huwa xayrun lakum aka bari lu ngeen dal ngeen dal ko fekk loolu moo gën ci yéen bala suñu borom mu ni wa asa an takrahu shay'an wa yaj'al allahu fihi xayran katira aka bari lu leen dal ci musiba ngeen dal ko lool fekk yàlla dala ci def yiw woo xam ne nii yiw wu rëy la loolu moo tax ba ñu ngi leen di ñaaxaat ngeen delluwaat topp seen borom di ko sant naam ci xéewal yi waaye di muñ muñ ko rafet ca la nga xam ne mooy natt yi di delluwaat ci moom suñu borom yàlla mu ne ay yéen ñi gëm dee leen muñ ca concours jëm ci muñ dee leen fagaru ngir ngeen doon ñooy texe mbokk suñu borom yàlla subhanahu wa taala li nga xamee ne moo ne danaa leen nattu benn ngoog sant ay jaamam na leen bu ma leen nattoo dellu leen ci man wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun borom bi subhanahu wa taala nag teg na ca la nga xamee ne nii mooy fay bu rëy rëy fay googu ñeenti fay la tey ba ca jiitu mooy li ñu tudde al bushra mooy bashiri sabirin mooy yeneen ci bi béggalal julit te mbokk julit day jàpp ne lu ko dal rek yiw la yeneen ci bi alayhi salaam moo ko wax ajaban li amri lmumin inna amrahu kullahu lahu xayr aka yéene mbiri julit léppam yiw la ca loolu julit rek moo ko moo ko moom ca mooy heure bu nattu ñëwee ci yow nga xam ne day la la yàlla di xaare ca allaxira loolu day mooy li gën a màgg li la yàlla dencal ci sa desutu dund loolu day moo gën a màgg natt bi nga xam ne dal na la moo tax suñu borom mu ne bashiri sabirin gannaaw ba suñu borom yàlla subhanahu wa taala ni ñooñu day ulaika alayhim salawatu min rabbi salaatullah ci jaam bi mooy tagg gam koy tagg ay yéen malaaka yi xool leen Muhammad Njaay xool leen natt bi ma ko teg teewul de ni may sant di ma gërëm di dellu ci man maa ngi leen di seedeel sama gërëm ci moom xool leen fàccaam xoolal natt bi ma ko teg teewul mi ngi may sant mi ngi may gërëm di dellu ci man maa ngi leen di seedeel sama ngërëm ci moom ca loolee mbokk julit borom bi bi mu ñuy wax naan maa asaabi min musiba musiba ci julit seen niñ ci forme suñu borom li muy nattoo jaam kenn mënu ko fekk am na natt yooyu judduwaale benn waaye ngi nii ndeysaan yàlla ngi téye ay tànkam nit ñaa ngi koy romb di waaxu di dem loolu nattu la bu ko dal na wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mun ko mun ko rafet kee yàlla ko nattoo dafa silmaxa kee yàlla ko nattoo moom bi mu juddoo ba tey dafa ñàkk kee yàlla ko nattoo duggul ci ab sëy kee ma ngay sëy mais moom amul doom kee yàlla bette na ko benn feebar chronique kii amoon na way jur xëy xëy yàlla jël way jur yi kii amoon soxna su baax su mu bëgg lool yàlla xëy xëy jël ko kii amoon jëkkëram ju ñuy doog a sëyal bëggante lool yàlla xëy xëy jël ko noonee mbokk natt yi kenn xamul nu ma toll na doon ci jëmm ji la na doon ci mbokk gi la na doon ci alal ji la na doon ci njaboot gi la yii yépp da ngay gis ne borom bi dane min musibatin te musiba bu mu mën a doon suñu borom nee na du wàcc lu dul ci ndigalu yàlla wa man yumin billahi yahdi qalba te képp koo xam ne nii dafa doon koo xamee ni dafa gëm yàlla yàlla subhanahu wa taala dina jubal xolam looloo tax borom xam-xam yu jëkk ya dañ doon wax na ñoom seen jardin seen bànneexu àdduna ñu ngi seen biir xol lu ñu am ci àdduna yokku ci ñoom lu ñu ñàkk ci àdduna yokku ci ñoom ndax la nga xamee ne mooy yëg-yëg ba ñu yëg ay jaami yàlla lañu te yàllaay dogal ci ñoom lu ko neex moo gën a màgg xéewal ya moo gën a màgg la nga xam ne ni dañ koo ñàkk borom boobu it subhanahu wa taala ni gannaaw bushra boobu bégal googu tagg wu rëy woowu mun a war rahma yàlla mun a dañ leen yërëm mbokk yàlla bu la yërëmee aar na la ca it musal na la ca laa chakk ni ajjana moom mooy yërmaande yàlla bi gën a kawe ca loolu mooy lay xaar waa ji muñ muñ gu rafet borom bi it ne ulaika humul muhtadun ca bokk na lu la yàlla di fayee heure bu nattu dalee sa kaw nga muñ ko muñ ko rafet yàlla ubbi sa xol jubal la ila siratu mustaqim yokk la ak njub yokk la la nga xamee ne ni ma ak mbaax loolee nga la way noonu lañu war a gis sa natt yi looloo tax ba borom xam-xam yi dañ naan nit ki day bu ko yàlla tegee natt ci àdduna waa suuf dañ koy yërëm malaakaw asamaan yi ñoom di ko ñi ndax la leen yàlla seedaloo ci la nga xamee ne mooy xéewal yooyu sottee ko ci moom par rapport ak natt boobee nga xam ne ni moo ko dal loolee itamit doon yëg-yëg boo xam ne nii nga la waay yow kon julit deel jéem a yëg loolu ci sa bopp nga xam ne day loo baax baax baax mënoo mucc ay nattu bal yeneen bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam daanañu wax ne ashaddu naasi balaan al anbiya ñi gën a tar ay nattu ñi mas a jaar ci kaw suuf mooy yeneen ci yàlla yi summa la amsilatu al amsal gannaaw ba ñoom mel na ñoom gën leen a jege wal mumin yubtala bi qadri diini bépp julit yàlla dana ko teg nattu ca la diineem toll heure bu nattu yàlla ñëwee ku gërëm nattu yàlla boobu ca mooy gërëm dogali yàlla na mooy dogal lu ko neex ci ay jaamam fa lahu rida yàlla subhanahu wa taala gërëm ko képp koo xam ne ni nag da ngaa jalgati saalib dem ca njabarkat ya foo toll yaa ngay jàmbar jàpp ne yàlla dalaa toroxal wala yàlla dalaa sàggane suñu yonent bi alei salatu wasalaam mu ne ku mel noonu mbirum yàlla da koy ñeel mbokk kon mi ngi noonu ngal la way nañ gannaa yoo fuñ mën a toll di dellu ci yàlla ci inna lillahi wa inna ilayhi rajiun même bu doon ñàddre moo wadd sa poche même bu doon sa dàll moo dagg même bu doon da nga paralysé ak lu mu mën a doon ci musiba day leen dellu ci yàlla subhanahu wa taala waaye it day leen ñaan yàlla musiba bu wàccee ci ndigulu yàlla lay wàcc du yëkkati ko lu dul ci ndigulu yàlla day leen ñaan yàlla yàlla subhanahu wa taala wax nañu ay yonentam yu bari yu mu teg ay natt yu safaano boo delloo ci suratul anbiya ñoom ñëpp dañ koo woo ku nekk mu teggi la lam la tegoon da doon nuux alayhi salaam la demal ci zakariya demal ci yonent yàlla yunusa demal ci yonent yàlla ayuba ñoom ñëpp da ngay gis ne suñu borom tegoon na leen ay natt yu benn bokkul ak sa morom waaye ñoom ñëpp dañoo dellu ci seen borom yàlla tegg natt boobee ala kulli xaal kon mbokk mi ngi noonu nañu góorgóorlu boo delluwaat rafetal njort ci yàlla muñaat mun ko rafet delluwaat ci yàlla jalla waala moom dong la ñuy ñaan yal na yàlla may ñu aafiya fi dunia wal axira yàlla bu ñu yàlla teg benn natt bu ñu attanul lépp lu ñu teg yal nañ ca may ñu muñ ko muñ ko rafet yal na ca yëkkatee suñuy daraja baale ca suñuy bakkaar te yal na yàlla teggil ñu ko fuñ ko foogewul woon yal na yàlla magal suñuy fay adduna ak alaxira yal na raf yàlla rafetal suñu mucc te defal ñu àjjana yi firdawsi muy suñu wàccuwaay اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين